G-A-C-S-T-O-N est-ce que na ngeen sedd loxo yi ma xool loxo yi ma xool. asalaamualeykum nuyu na ma leen tout le monde maaleykum salaam maaleykum yow asalaamualeykum nuyu na ma leen tout le yow asalaamualeykum nuyu na ma leen tout le monde. su ma ne gas ngeen ne ton su ne gas ngeen ne ton su ne alias ngeen ne bàyyi seen. hey yow góor. góor. alias. alias. hey yow seen. loxo ci kaw seen. est-ce mooy kan gas ndinga bi bëgg sa yaay addee loxo ci kaw ma xool sàkkul ñaanam xolam sedd si yow moo lay jëmale kanam Mama Lover yow soo di seet la gën a ci lycée boobu gone laa woon CP laa doon def école 3 bu mbuur la woon waaye tey gone moo màgg doon Gaston rappeur bu ñëpp di tàgg li mu génne day chon gone ga màgg na sax si kim jabar ak ñaari doom sàccul fenul ngoroog jom la def muy koom gone ga màgg na fent way jagle la yéene moo doonoon fu jabaram toggee yàkkal la bàyyi fan nga ne ci lëndëm wala leer ci naaj wala keet jant loxo mama booy bëggoon naa nga gis say sët di ka fak ñoom bëggoon naa nga fekke sama njëriñ bëggoon naa bala nga dem bëggoon say sët di ka fak ñoom waaye sant rek te yow mënu ma wax ak gaay fàtte yaay kon ma weeree juróom-ñeenti weer yeeg jooy yu guddi yombul seere daa seddal xolu baay moo yoon gis nga ni mu leeree soo oto yeeg état si liggéeyam la waroo ko warul wax nga tontu ko rongo ñam fomp solal ko dëkkal ko soo ko mënee xont ko budul woon yaay kenn du wax doom bay tudd alalam aj ko sa kaw di ko napp nappee ni bëlëg xalamam warul dugg ci waañ bi te jabar nekk si kër gi talal ko cër bu muy metti moo doon kër ci kër ci yaay du moroom donte baatu kër gi bàyyee sa jabar goroom na ko jox cër moo liggéey guróom waroo reere ginaar bàyyee ko muy tubbu reer ci añ xaafal ko dënn ak boot donte sa jabar moom jigéen ju baax dafa war a sëy ak yaay ak doom warul sëy ak koom da kay ñaanu yaay sàkku ko barke baay wuti ko ñoom ñaar la woon démb soor leen tey ngir wax ju neex ànd ak seddalal xoolu bu mës a fàtte baay si noo yaa ci musiba ñaanu yaay sàkku ko barke baay wuti ko ñoom ñaar la woon démb soor leen tey wax ju neex ànd ak seddalal xoolu bu mës a fàtte baay si noo yaa ci musiba liggéeyu ndey ñaanu yaajur galaaju doom la liggéeyu ndey ñaanu waajur ku bëgg texe yoon waa ngoog jóg dox la bañ a toog toogal xolu waajur wallaahi ñàkk jom la bu la yaay yónnee bul bañ demal ndaxte moo la jur déggal ko nangu kàddoom dëggal ko li kàddu bu bàyyi waroo ak moom moo taxoon yow nga lekk ba suur moo la solal fay sa école bi tax tey nga ñotti waajur lu foor la fexe ko sàmm ndax or la ca bañi door la daa bëgg nga baax waral mu dóor la mere ko toor la waajur si ak noor la yaaya booy sant naa ko jigéen ju man góor la boppam yéen ñaar munu ma leen fay gëstu mooy lu mot jërëjëf yaay jërëjëf c'est dooma fentu way may leen jërëjëf yaay jërëjëf baay munu ma leen mënul jërëjëf yaay jërëjëf baay c'est dooma fentu way may leen jërëjëf yaay jërëjëf baay munu ma leen mënul jërëjëf yaay